jërëjëf mbokkeen donot ñuy bàyyi xel partout ci monde bi mbokk yi amati nañ mbégte bu baax a baax a baax ak contentement bu rey comme ni ñu koy defee saa su yaakaar naa ne tey ñu ngi fi nga xam ne moom moo di jàmm gën ñëwoon nañ fi euh, euh, lu yàggul dara tey nag ñu war a ñëwaat waxtaan ak moom seqaat ak moom aw waxtaan lu bëree baree bari ci biir làmb gannaaw toogaay bi nga xam ne toog na ko décembre ba décembre di waaj a dellusiwaat amul combat loolu dinañ ci ñëw incha allah du ñàkk moom ñëw na ci ay émission émission mooy voyage bi nga xam ni euh, mujjewul dem kon loolu dañ ci tënk rek astur rek ñu ñëw ci carrière bi ñëw ci adversaire yi fi mu ne nag dégg naa xaw ma ñu ngi wax combat mag Ziza gars yi ni taxaw na ñu naan taxawul waaye dinañ ci waxtaan incha allah ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet tey nag ay verre la maye euh. verre yi waar nga maye nag tey ñu lay nuyu bu baax a baax a baax bàyyi la nga nuyoog mbokk internet. lii mooy photo guerre photo guerre quoi. waaw ginnaaw ma waaw ginnaaw ma si yonent bi waaw di sant sama ñaari waajur comprendre waaw di bëgg duniyaaw aaxuraa di bëgg moomin yii nii xale yeeg jàmbaareeg ñëpp waaw di jéggalu àdduna waaw di bëgg ñëpp gaan bar sëñ Bamba waaw di bëggee ñu ma war a jëndal oto rek te gisaguma oto. Hmm. waaw bëgg naa leen a gis. daa am ñu la war a jëndal. damaa sonn si dox beeg mbatoy ñànkare waaw. <laughs> waa di lu buusatee di kaas ngay kaas. waaye naa non. bu loo xam ne moom bu sama grand la. naa ñoo far ko waa ñoo bokk mbuus. waaw yàlla naka yàlla may jàmm di jégalu ñëpp. di bëgg ay alliance balde ñi ma daan. ah ay plateau ah comme yaa tudd buuk. Ah, da ñëpp laa bëgg a santaale benn yoon ndax ñoom ñii bu ma déggee wooy wooy wooy ñoom la waaw ah, maa leen di sant bu baax a baax. waa naa leen awara gongo a ah, gongo. loolu mooy lan awara gongo. awana gongo gongo. bu ma la nee gongo rek nee ma gongo. waaw bu ma la nee tooni woo. man munu ma laa gongo te xaw ma li ngay wax. saa bu ma la nee tooni woo tooni woo nee ma ka reeno waaw. bar sëñ Bamba. kon wax yi nga yor laa xamul foo koy jëlee ay ay njaago la wala ay pël la wala wala ay joola la. saa yu déggoo li ma li wax ni doo ko dindi. bu ma la nee tooni woo tooni woo nee ma wote nii benka reeno waaw loolu noonu doo ko dindi saa yi. <laughs> loolu tey damaa soj de tey bëgguma reer ju bari. waaw comme naa day daw rek. ah am na solo léegi nag ah, du du ñàkk ñu ñëw ci voyage bi. Ah, ñëw nga ci ay émissions yu bëree baree bëri légui nak mom dañ ciy teunk rek mu melni tam am nga lo ci jàngee lu bare bare bare ci li nga xamni demo ci ta xam nga tam yalla yalla moom moy dogal ay wa voyage bi ndeysaan ku ñew lool la may laaj man voyage bi yeen da melni da rayon ci yeen de mais ah. tamit waa jàng naa si loo xamante ne nii si mbiru lo war ta dem do dem war ta am do xam ndax yow gis na fi ku tabax kërëm ba kër gi pare tankam bi musul teggu ci bir kër gi waaw comme moo tax waa man. waaw mi ngi baax de. waaw maa ngi sant yàlla non def ma dara. waaw valise bi daal dugaloon naa sama yére denc ko ci biir. dégg naa la sa kër yi. ay lax sa yu ma dencoon daaba ren war ay dàlla bota ay Timberland yooyu yëpp mi ngi foofu ma teg du ma ko tijjin mukk ba waa keroog may dem. waaw. baa ah, mais bu yoon jeexul wax si du jeex maa ngi eseg naa. mais yàlla mun na dogal tamit ma après ma échoué voilà du noonu saa damaa échec damay échoué après rek bii di ñëw mooy daax comme que plan B échec plan E échoué hmm. waaw. man nag am nañu moo ma woon ñu bari ndax code onze bi bi ñu gis xam nga booy nag dañoo bëgg dañoo bëgg pari foot. waaw naar bi nag borom pari foot bi moo ma kale. daa doo perte quoi xam ne loolu du ko arrangé mu kale ma. waaw mu bloqué ma sunguf ma reen ma. naar bi du nit. naar bi doo nit yaa ma kale mais sëñ Fallou rek waaw. léegi nag moom toog nga deux mille décembre ba léegi vingt cinq décembre su ma juumul nga bëre woon ak Alliance Baldé boobu ba léegi. amu combat ñëwoon na sa kosu bi na sax ni contrat bi nga nekkon ci MMA wala li nga non préparer MMA motax tax sa lam mënul won tax. waaw looloo gën a taxoon mais man sa même bu dul loolu sax ay e man mom duma teyal di la ko sa suur ben cadeau la man sax buma ma bëré damay bëré wa man ñi ngi may proposer même ba ay MMA ñi ngi ñen ñi mom dañ ma do ragal avance nee nañ dañuy bañ ma daw te man na dem ba ay France di daw. ndaw ma si gam yoy ñom ñu ne comprendre nga mais. tamit waa yàllaa fi ne daal man chaque jour bu ma neexee damay bëre mais bis du romb boromam waaw mais amul jour boo xamante ne ni waaw mun man daal bu ma bërewul rek man la neex waaw ndax man duma ma ñëw rek jël combat ndax man dama am ay kilifa te booy ndaw yi ñooy sama kilifa ñoom ñooy bëgg rek booy bu ma leen nee gaan may jël komba buñ ma nee noo xaaral damay xam ne yoruñ booy buñ yoree rek dañ may ne parfois nga def émission ba pare nag gis ay ay yoo xam ni yow moom mën ngaa leer jàng nga ndax parfois mu bind la nga tontu ma du ñàkk ay commentaires yu négatif ay commentaires yu positif nga koy gis yoo xam ne dañ lay dañ lay ŋàññi ak ñoo xam ne dañ lay encouragé. of dëgg yàlla barki allah gi fàllu yee man commentaire yu may xool yëpp sax du ma si gis ku may xasar aw ma temps bu may xoolee ay commentaires sax mais yi ma jot a gis man wala lu nit di capturer di ma envoyé. No gisuma ku ma ŋàññi quoi wala ko xamne amna am leneen lim ma wax quoi non musul am. non non. mën naa mën naa kon amu ay non dal wala non yi bari ah, bu bu amé sax gisuma len de te feeñul fu deug yalla billahi waaw. Ah. am solo lig nak namm nañ say namm nañ sa combat. motax beñuma ken ber seigne Bamba. ken beñuma motax beñuma ken bañu mhm. du ñàkk nag am na ñu bëgg say combat Laurent nga war a ñëw arène nationale war a summeeku ñëw bëre loolu am na ñu ko namu ndax am na say supporters yoo xam ne nekkuñu ñu gën te bëgg nañu nga bëre euh, euh, toogaay bi toogaay bi euh, toogaay bi donte ko wax nga di ko waral waaye adversaire yi ci laay ñëw ak yow yan adversaire la lay proposé. problème adversaire gis nga man ñi ngi may woo di ma wax ay mbër mais bu ma leereen kii nga may maa ko raw si laam yaa dama loo xamante ne nii yow mii. waaw du la arrangé dootoo ma woo quoi ndax man am na promoteur yoo xam ne wanu ma leen ñàkk jom boo xamante ne nii comprend nga noonu lay demee quoi. ok mais ñu ngi wax sa diggante si ça. Ah? waaw ñu ngi koy wax. ñu saa ba door xaj bi feeñoo xaj bi kat daa dëgër bopp kii daa ragal xaj muy ñëw si côté ay man sama xaj bi nii du nit. ku ragal xaj. naa ragal xaj ba mu ñëwee gisoo noo xullee say bët. Lolo tax ma dor ko ben am jaay joxol job dawal gaaw. bilay lora <laughs> dama bàyyi ngir yalla <laughs> damay woowaat war xajbi de. Ah, nice barki ya xajbi lay wo woowaat de. da nga ragal buma ko woy da ngay mere ko la deful dara de. bilay legi ñu ngi wax ñi nga doon wax ci diggante Ziza de lolu fal la tolu ah, sama diggante Ziza. wa ñi ngi ci. ñi ngi ci ah yéen a ngi ci est-ce que làmb ji taxawul dégg naa ci ay rumeur. waaw mais waaw làmb la rek. mbar sëñ Bamba dagg sa yaram la toj sa yax def ko waa ay mbaar ak lépp tetesu kay. loolu ko xëy na Ziza. ah di patiri si aliyaay nii bilaay damaa mën ci bii boor mën ci bee boor. ba day teew yore bu xonk bi day teew yaa ngi gis yaa ngi gis waa bilaay mooy yoon barki yàlla jàmbaar yeekan ya, na ins moy wax ak yow de ins ES ngi billi moom de bu ñëwee arène nationale daal yi lay day dof barke allah gi fal boko fekke fekkee arène da ngay ne ki du nit ndax da am lim fa am te da kay jeli moy la ndam mom ndam la xam waaw ah, ki xamul lenen ki ndam la xam waaw motax bu ñu rek day simi daal lay xooli fu mu jëm Ah. sama rom yang merde nyala, mer de. ñaan la. ne da ngaa war a jël avance bi ngeen bëre. bari na kay booy yu bëgg waaw dëgg la du ñu samay morom ñooñu samay mag lañ saa ñoo ñoo mag. déet ñooñ moom say morom. bari booy yooyu di ay deux mille deux deux mille trois. saa kay di. bu leen bu leen jaawale yéen xam lan ngeen jaawale. ku xaw a si ay garaam di bëre. ngeen jaawale lis barki allah gi fàllu xale la. mais lis bu bu ko ñooñu magee man man saa làmb gi aw ma fi morom de ma dëgër fi dek man ñu may bëreel niñ ma magee bëri na de ñii di ma tëkku nag waxuma la ak déet bar sëñ Bamba. sos <laughs> sos nag sos sos ay jamono moom noonu <laughs> nga ko fi tëkku moom. daa daanu de soxlawu ma ko. soxla woo sos sos. non non. sos sos champion la de. ndaanaan la sos def fi ne. waaw waaw ah. bëreeg ay guy gi daan leen bëreeg boo ñang ah bu ay boy seeg ñoom Issa Pé nga ne soxla woon. waaw mais tamit lépp làmb la rek. maa xebal man ñi ma bëre. yow bu la joxoon avance na bëre naa. tëkkuwu ma ko de yàlla na ko yàlla may jàmm. Hmm. ak blessiram waaw. yàlla na ko daa blessé. waaw sos yow démb jëli woo woon sos xoom. waaw comme moo xanaa woo parce que woo naa lu leen di dal si man ngeen kii ñëw rek bett ma ma defar leen émission man ma ngi ñooñu yemuñu de. ay star rek. mais mais doo doo star Baye Fall. non non man sàkkuwuma star quoi bu ma ko sàkku woon mun naa ko doon mais sàkkuwuma ko. waaw man Baye Fall laay sàkku ak taalibe quoi. waaw ak yàlla man yàlla rek laay sàkku. waaw mais sàkkuwuma star. ndax. estar moom gaan ku ko fi doon ku ne rek moo loolu dañ laa waaw yàllaa la si compal sob nii rek. ok na solo. yow nag moom sa émission parfois ñu ree parfois ngay jàngale lu bare bare bari may dagg di dugal TikTok parfois di nga ko gis nag di commenter rek yooyu noonu euh, euh, ba léegi ci booy laay ñëw ak yow parfois nga boo heure boo defee émission sax laay wax da ngay ñëw ci ñoom mbëggeel gi ngi leen bëgg am nañu jàpp ne rek loolu moom du loo gëm ndax mbër day wore mandu member, wow member day war ya? mandu member. te ya karna ben member mo am si aduna mi yalla te yalla du waré ya? Ah comme lol non nit moy war member du war de nit moy war barki leru alquran yow lele nga jóge si ko xamantene ni nen dang ka war wa lol day am yow lele nga taxaw ne kenen ak da la war ye comme nit moy war ko a te yow doo lan moy mbeur man ñaanuma yalla doon yalla ay mbeur waaw man kat la waaw mais boy parfois ñu leen fekk ci ci bundu kër wa boy ta xam nga ni xam nga ni semaine bi dimanche lañu noppal waaw du rek dañ koy liggéey waaw mais boy dañuy liggéey ye boy yëpp dañuy liggéey heure repos sax nga fekk yenn boy waaw te boy boy man ak ñom sa boy buma len naré warna war torox sama aduna de booy nii ku ma si war man naa ko gis te bu ma leen waree damay torox nit bii torox laay doon te bu ma naree torox yàlla bu ma war booy waaw booy seen avancement mi ngi si man saa yenn booy yëpp saa chaque jour ma wax loo booy dëkkuñu kër gu seen papa moom walla seen yaay booy dañuy jaayante booy ku nekk danga ngaa bëgg am kër. billaay walaay taalaay yee am na ñoo xamante ne gisuñu yaay gisuñu papa. saa damay ànd ak ay jërëm quoi léegi ñooñu noonu soo xoolee ñenn ñi sax wala waa ay raq lañ am amuñu ay mag barki leeru alxuraan yaa am na foo xamante ne nii man maa leen si mën a soutenir quoi te si kàttanu yàlla fekk neex na yàlla si doole sëñ Fallou barki leeru alxuraan waaw yàlla na yuuxu jug fuñ ko fogewul waaw ndax bëgg naa comme gars yi ñu mun a koot amuñu lan lay wax bar sëñ Bamba amuñu mbaak xaw ma waaw gis nga maag booy nañ dem rek waaw man booy laa am man faalewu ma ministre faalewu ma gouverneur faalewu ma député man booy rek waaw te toujours ma leen koy man waxuma ngir yërëm nit yërëm ma waaw ku ñuy yërëm ku ne rek da ngay xeebu man bu ma kenn yërëm man jàmbaar laa te doomu jàmbaar laa mais te a ñàkk quoi daa am foo xam dañ kaa teg suñu bët waaw teg fekk yoon jeexul wax suñ du jeex moo tax ku nee ngi wax sa MMA bi daa yàqoog daa deme noonu non non man waaj naa combat bañ ne subala mu yàqu comme tey bu ma waajee MMA mu yàqu xam naa li ma yàlla dencal moo may sant yàlla bu wér a barki leeru alquran man lu sama kanam mo upp nih ni nih, ngay gis ni ndax man da am ay sa man buma teki tekkiwul boy di ñen ñi dinañ sonu de waaw da am ñu yaqar si man man ma yaqar si ñom da man nak dama gis ni si man lay gëna a gaaw mais man ñom yal nañ ma teki mais ci man lay naga a gaawee quoi dama wara sauver ay honneur yu beuri léegi man tay gi ni bu xawé jaxoso ci man ni rek barki leeru alquran wala sama lamb metti rek non saa yuuxu jug fuñ ko fogewal de boy def gi xolal luñ bëggu ta def ya billahi mais xaliss nak euh, boko yorul yorul hein tay man nga am yermande mais bo demee bo yor ko mu bari say loxo nii di gis ay 10000 ak ay 5000 da ngay melni da ngay xawa changer wa man sama avance bu ñëwee duma changer damay gis ñu avance ma mu téexum bëri sama loxo lool te du ma changé yee fa laay jàngee lu bëri quoi saa man lu ma nit gën a soxla rek yaa ko fi am boo ko fi fekkee rek yaa ko moom barki leeru alxuraan yee man kay lu nit soxlawul sax dama la koy forcé wax ma la ak ma gën a soxla yee tey bu demee ba am am ay milliards nek milliardaire wala nek millionnaire lan ngay lan ngay njëkk a def. boba di nga dégg boy yëpp ñi ñi ngi Europe ñi manam ñi ngay dégg ñi considérer bande sa di nga leen dégg ci kaaweeg fu ne di nga ci gis ku tabaxal yaay yi kër di nga gis lu ne wa mais tamit bala loolu manam bëgg tabaxal sama yaay kër wa sa sa mer mo lol de jambar de barki Allah gi fallu wa sa mer jambar yàlla naa am jabar bu mel ni sama mère. yàlla naa am jabar bu mel ni sama yaay. daa nekk ci yu baax allah ji fàllu man bu ma may jabar bu mel ni sama mère rek ñàkkuma dara sama àdduna waaw waaw man sama mère jàmbaar la de waaw daa nangoo muñ ko waaw. billaay mère meeg boo déggee jigéen bu mën góor man jàpp naan sama yaay la de waaw ak yaay ñëpp. barki leeru alquran waaw. ba léegi mi mi mi mi ngi ci wi. sama mère rek yow 5 h du matin liggéey ngoon boo toogoon tuuti léegi nga gis Moussa Faye gerte di jaay encore waaw. mais loolu boo ci teg sa booy loolu boo ci teg sa bët. waaw may xam ne rek ndeysaan mais man saa maay caat waaw man xam naa samay mag yu góor luñ dund ak sama mère man mënu ma ko dund ak moom sama mère yàlla naa ko njëkk a dee. barki leeru alxuraan mais damaa xam loolu quoi billaay te man tamit bu may am alal nii yàlla na ko sama mère fekkee waaw dëgg sama mag bu jigéen moo ma yar ndax sama mère amul temps day xëy di daan doole amul temps sama mag bu jigéen moo ma yar moo ma defaral lépp comprendre mais waaw yàlla na sama yaay fekkee sama njëriñ waaw. am na solo parfois keroog nag laajoon naa la benn question nga ni ma nga ni parfois xëy sax du ma ndékki ta nga yor iPhone 12 xaw ma tëddee. waaw man sàqu ma téléphone lii weñ la rek. gars yi ñu la ko may wala waaw waaw. bu ma ko naree gënal sama bopp samay booy am na ñu yitewoo ay affaire quoi billaahi te samay booy ku si amoon soxla bu teg nii bu taxaw urgent ma jaay téléphone bi léegi. loolu mos la dal. sa benn xarit am am ay problème soxla xaalis nga jaay si. man yàlla mi ngi may sutural samay booy fu ñuy amee problème xaalis wala problème dara rek day bu ñëwee day tombeek man ma yor ko quoi pour mun ko faj. moo tax mosuma fàttaliku fu ma jaay sama alal. man bu ma buñ ñëwoon di ma ko wax sax ba ma nar ko jaay da ngay gis ñu béy mais yàlla ngi may sutural bu ñëwee rek day tombe xanga nga yaa ma gën a xam dañ ka fiy fekk te ñoom ñoo ko moom loolu seen alal la waaw moo tax. ya a dugub ak bañ a fariñ. lan mooy lool. bañ a dugub ak bañ a fariñ. bañ a dugub ak bañ a fariñ mooy la. boo ci gën a bëgg ci ñaar yooyu. ñaar yëpp du ma ko lekk. Ah, neex ma rek. waaw. bu ma xiiful moom <laughs> yow lay faral di loolu yow la nga gën a bëgg ci pala. non non lem lem. lem pala la lem. lem du pala lem du pala. wala caméraman bi naa la naa la Baba kan mooy Baba Ndiaye. waaw dégg Baba Ndiaye ku yënga rek ñu vider. waaw. Ngaax moom gémara rappeur mais waa ji lu mu ko wax ñaaw loolu ñoom la rek seen mbir man de duma ko wax ngaaka waaw ndax sama mag la waa jox naa ko respect bu baax a baax daf may woo téléphone dañuy déggante. loolu gis nga ne ñàkk la. non ñoom la seen biir quoi ñoom ñooy waxante. waa xam man du ma rappeur. te mosuma signature wax mbër lu ñaaw. waaw moo tax quoi léegi ñoom nag loolu noonu mooy yëngal game bi ñi ngi koy game nañ ko game rek waaw ñoom ñoo ñëpp yàlla na la yàlla may jaam te xam naa ne jàmm lañ seeg. waaw mais li nga nii sax mosuma kaa déglu yaa ma ko wax nii léegi sax. mosoo déglu loolu. non non yow koy faral di déglu ci musiciens yi. ñëpp laay déglu nag. mais am na koo xam ne moom di ko déglu bu la jàngul àdduna dina la dina la la yëngal daal. waaw damay déglu ay El Hadj Diouf waaw El ba muy naan am na ñoo xam ne am na gis ne suba du leer am na ñu xëy seen yaakaar tas am na ñu déglu mu may wax ay dëkkuloo fii lo fi yow yoy non da day am lum lay def waaw ah, ay. deug na da ngay déglu ñom Rihanna ak Beyoncé. sa man nay neex rek. waaw lele ma dugg ambiance ah, ah, lele ma dugg lu may xamal aduna ndax ñun xamuñu dara. ye moo tax ko wa da daa ni dictionnaire am na lu bari lo xam te te nit ñi xamuñu ko. comme lan la. yow man ya, dictionnaire nga ndax parfois nga wax émission jang nit da ci lu bari bari deug billahi duma ci baye xel sax. barki Alaaji Fàllu saa man nii may waxee yow noonu laa mel su ma duggee sama gaale xool noonu laay waxee bu ma toogee fee noonu laa bu ma toogee fii noonu laa waxee. mais ndax li ngay waxee ci émission bi di ko di ko jàllale message boobu est-ce que yaa ngi koy jàllale. booy <laughs> booy maa ngi xamante nañ. booy ay jàmbaar rek bar sëñ Bamba. saay man mosoo maa interroger ma lay tuddal ay député wala di wax ay kii sama sponsor bi di wax. man boy rek la lay tuddal. ah buma sonne ba son sa ñom lay gis buma jaxlé ñom lay gis man lima ma am booy la man boy ni sa boy yal na len yalla may jam mais boy dañu wara am lu bari bar sëñ Bamba. loñ bi billahi